ak ici au Sénégal ba ñuy wax Mahatma Gandhi bu ñu xooloon bu baax commencé Serigne Touba limu mu liggéey ci mën nga régler problème xex ba am ndam ci biir non violence Nelson Mandela top na aussi tànk yooyu ba am ndam yi mu am ñëpp gis ko donc Serigne Touba euh, bu amé bës bu toll ni ñu ñëw fi tey euh, dama bëggoon demander à toute la classe politique ku fi ñëw na diine nekk sa xol na ziar nekk sa xol te nga jiital loolu ñu bañ fi ñëw.

Euh, dina baax ci ñun surtout les pays sahéliens yo xam dañu sonn ndax affaire environnement bi ni mu yàqoo ma tek ci ne benn problème bu ñu am te ñëpp gis ko moy problème de sécurité dëkk bu mel Mali gis ngeen niñ ko songé attaquer ko dëkk bu mel Nigeria ñu am ci yaakaar fi ci Afrique gis ngeen niñ ko songé te ñi leen di song ñoñu Sénégal daf ci wara bayyi xel bu baax parce que nenañu ñun li ñuy def du diiné nee ñom ñoom ñoo xam diiné ñom ñoo mën diiné ma wedd leen nag ñoom wedd leen ci turu wali yu tedd yi ñu yàlla may xeebuñu leen te xalaatuñ ne keneen gën na leen ci àdduna bi liñ ñu defal fii ci senegal yoon biñ ñu éduqué ci diine yar ñu ci tolérance ci xol bu rafet ci jaamu yàlla duñ leen weccoo ak kenn kenn mënul ñëw fii jëlee sa gis-gisu diine feneen ñëw naan dag ñu koy imposer Sénégal te boo ñu xeebalee suñu kilifa yooyu ñun ñu xeeb la yow sa bopp ñu wedd la gëm ne yow li ngay def du diine tegoo ko ci islaam donc ma ñaan sëriñ bi tey xalif général ne ko ñaanalal Sénégal ñu ñaan ñu góorgóorlu ci mbirum sécurité yenn ñi ci diine nag diine bi ñu yaree fii Sénégal te suñu mag ñi defal ñu ko wala yu tedd tëdd fu nekk tëdd Fuuta tëdd Tambacounda tëdd Casamance tëdd Bawol Kayoor tëdd fu nekk wala yu tedd yooyu li ñu defal dañ ko war a gëm gën a continuer di ko gëm jàpp ci yoon boobu te bañ ko bàyyi donc loolu aussi wax naa ko troisième appel bi ma lancé nag mooy Sénégal sénégalais boo waxal mu ne la réew mi dafa metti sénégalais yi dañu sonn koo waxal mu wax la loolu moo tax ma ne keroog bañ naan ay classement pauvreté Sénégal 25e pays bi gën a pauvre ci monde bi ak ñoom seen gouvernement bi di ko naxarlu ma ne leen waru leen ko naxarlu parce que pauvreté am na ci dëkk bi c'est la vérité sénégalais yi dañu sonn la pauvreté bobu wesso nak 50-50 ans résultat bi la am manam nous ñu def defuñu ko éducation bi euh, la santé nous infrastructure yi énergie bi réglé wuñ ko 50-50 ans man bu doon jité mi buñ ñoo pauvre monde bi jindi problème de communication parce que si waxé dé melni yow ya fi indi pauvreté 50 50 ans de gouvernement mo ñu jox résultat bi, ba tay Sénégal dañu wara disso dañu wara changer suñu réew yalla may nañu xam-xam bi may ñu ñaan bi may ñu wali wi dara manké wuñ ci Sénégal bo xolé Sénégal yi nek bitim réew li ñu diaspora diaspora bi gën ci aduna bi ñun ñoko ko ay doomu Sénégal rek ñoy def li tuba bi naan la pluie et le beau temps dans les plus grandes institutions du monde fo dem doomu Sénégal yaa ngi taxaw difa am ndam pourquoi doomu Sénégal mën am ndam bitim réew mënul am ndam ci réewam. lan mooy problème mu Sénégal ba xam ne li ñu yàlla waroon may wàccoo na ñun lépp jox nañu ko mais mënuñu fexe ba taxawal suñu réew développé ko parce que suñu politiciens yi li ñu naan classe politique Sénégal dañu bëgg fitna dañu bëgg dëkk ci fitna wax ju ñaaw xëccoo xiiroo ŋaayoo bu ñu jooy naan gaajo yow depuis deux ans dégguñu la foo nekkoon nag gaajo tànk ay waxu fitna la ay wax ju ñaaw waxu saagante waxu xastante kenn du ci dégg gaajo fu ñu nee nag waxu développement tabax Sénégal dafa suñu réew jëndi fi li fi am métti yi Sénégalais yi di jànkonteel kuñ ku ko wax boo gestoo daa gis gaajoo taxaso wet wala jiitu la di wax wax jooju donc ñun loolu mooy suñu démarche dañu ne Sénégal sonn na Afrique sonn na nañu booloo doomu Afrique doomu Sénégal ñu liggéey malaise bi am ci Sénégal tey ci diggante ñaari njiit yi ki fi jóge ak ki fi toog man maa wax ne c'est un malaise qu'ils ont créé au Sénégal nañu góorgóorlu jëndi ko fitna ñu teggi ko ku nekk nak na gëm li mu gëm mënuñu ñun ñëpp xalaat ndo la même chose ñëpp sol pointure 43 sol même taille de veste costume c'est pas possible. yalla mënul bindandoo doomu adam yëpp ku nekk mu yemale leen ci lépp dañoo wuté ku nekk amna no noo gisee àdduna nooy gëstoo nooy xalaatee ak ñoom seen donc loolu bu amé dañuy nangu nit ñi différent politiquement ku nekk am sa gis-gis ñun MPSL dañu am suñu gis-gis. dañu gëm né panafricanisme Afrique bu bolo mo mën suxali Sénégal ba jëmele ko kanam. Sénégal ci boppam Sénégal la ñuy liggéeyal en défendant l'Afrique Afrique loolu daf il faut mu leer ci bop nit ñi donc loolu mo waraloon ñu xalaat ne tay ku fi ñew na nga lancer appelu jamm xasuñu kenn xulowuñoo kenn neewuñu kenn baaxul nit ñoo baax neewuñu kenn dafa bon tudduñu fi loolu dañ ñew magal ci dañ ñew ziyaare dañ ñew sakku ñaan loolu ñu fi indi woon te def nañ ko ñu ngi sant suñu borom ñu ngi pare dellu Dakar continuer suñu liggéey suñu ay mbokk dess fi continuer magal bi représenter ñu dignement donc vraiment maa leen di sant di leen gërëm